rek penc la ñaari penc maa ko maa ko débarrage débarrage ko léegi xam ngeen deuxième penc mooy ñan si Dakar deuxième penc xamoo leen ko mooy pël Fuuta yi saraxule aja suje so ñaari penc waaw ce sont les meilleurs élèves ñoom la ñuy primé le léegi leçon yi dañoo bëgg ñu ngeen bëgg ñu koy woy les leçons à l'école il faut ñu koy woy waaw ku mënul lire doo yéeg waaw ana dund waaw léegi léegi léegi léegi Lamine léegi léegi ñoom xam nga lu tax ñu way gaaw a capté dafa am ñaari tubaab yu wax mooy li xale bi mu dégg benn yoon ñaar ñett rek da koy mën a répété waruñu ko xeeb war nañu ne xale yi loolu ñu jàngal ba ñu nekk xale dañ leen koy teel a def seen bopp. déedéet yow dafa am benn professeur. waaw bu tudd nu mu tudd si ma benn. professeur l'anglais. waaw te mu nekkoon fii si école bi. waaw professeur anglais bi. Fofana. waaw voilà professeur Fofana. dëgg la da doon jàngal booy yi anglais. ci way mais booy yi dañuy jàng fat fat bu gaaw gaaw gaaw. waaw moo tax wooy dafa am solo. ayca mu ñëwaat. ayca di ñu ñëw. reprise bi reprise. ñaari fecckat ak yaa ngi nii taxaw. ñu doon ñaari fecckat yi. waaw su amee benn mère bu jigéen nag bu ñëw baax na. yéen waa endroit la ngeen rek. Thank you.

ñoom ñoo décidé nag dañuy demaat seen kër yi dajale xale foofu comme ñoom kàdda yi ñu dem ndax moo gën a wóor ñoom loolu la ñu wax. ngay ñaan yàlla képp ku xam ne ko bind amul kala bu am quatre ans cinq ans bu nekk tey di xeex da nga ñëw wala nga jooy ñëwal ci man soo ñëwee nga jox la kala balaa may tëdd. voilà voilà loolu dama bëgg mu leer ñi nga xam ne nag. ñoo ci jàlloo ñi nga xam ne dëgg ñu ci dara. Thank you. Don't be quiet now, even you

Yeah.

Sénégal di tos maa par euh, euh, mais biñ koy créé tamit dafa ànd ak fekk samay frère lañu boo xoolee bi ñuy njëkk dem c'était en 2000 dañu àndoon ak xale yi ñu di leen yóbbu parc rek di fontu néeg yooyu ñuy dem ak affaire yi gën a kii ñoom Youssou Dia ñoom Aliou ñoom Cheikh Guissé ñëpp ñëw di si jàpp. mais c'est en c'est en 2005 cinq lañ commencé joxe kado yi bi ñu commencé joxe cadeau ñu ñu ngi commencé 300 cadeau depuis 300 cadeau yi ba tey mosuñu ko wàcc dañuy joxe plus wala yooyu boo xoolee nag euh, euh, lépp yaraax la souvent dañuy jël xale yoo xam ne ñoo am 4 ans ak 5 ans. jël leen au niveau de yaraax mais duñu duñu xool ne kii parti bi la bokk wala kële dañuy xool yaraax doomu yaraax yëpp amaa ñu jënd cadeau dañuy xool xale yi am 4 ans 5 ans yëpp ñaata la ñu ñu doog a estimer pour ut cadeau noonu la noonu la affaire yi demee mais souvent nag affaire boo gisee mu dox mooy monsieur le maire an an an Bel-Air Amadou Dia foofu monsieur le maire moo njëkk a joxe cadeau moo ñu njëkk jox añ ndax dana am yendu Covid bi moo tax ñu arrêté ko mais dañu daan yendu parc commandant Lamine Gueye tamit jàpp ba ñu demee ba si yàgg moom am suñu benn pape bu xam ne moo moo relevé affaire yi muy pape Odou Diagne Odou jaañ boo xoolee plus de dix ans mooy jëndal xale yëpp kado yàlla def mu génn àddina ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xale ko àjjana yu gën a kawe. loolu ñu ngi koy félicité ñu di félicité tamit waa waa LSE waa LSE les spécialistes de l' énergie dañu mës a jàpp si fête bi ça fait longtemps plus de dix ans ñu siy jàpp ñuy gërëm tamit waa Petrosen ñoom tamit jàpp na ci bu baax a baax chaque année presque ñooy solo xale yëpp t ñuy ñuy gërëm tamit la mairie de Hann Babacar Mbengue bi mu ñëwee ba tey fekk Amadou Dia doon fon lool ba mu ñëwee tamit moom da ko continuer tamit ñoo ngi koy sant tamit moom tamit di ko di ko gërëm di ko gërëm di gërëm toute la population de Hann di gërëm di gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoo tax affaire bi yegg fii di ñu jàppale di gërëm tamit parents yi parents yi tamit ñoo ngi leen di képp ku ñu mës a dimbale rek ñoo leen di gërëm di leen sant en tout cas daal xol yi sedd na trop te lii rek lañ ci def Odou Diagne moom amuñu fayam Odou amuñu fayam ndax Odou lépp moom la lépp moom la ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko jël ko bàkkaar xale ko àjjana kam bi gërëm tamit jabaram bi nga xam ne moo fi nekk bi oodu de bi tey moom tamit mu ngi siy jàpp mu si jàpp di si def lu mu mënul mooy altine jaan at fanweeri ñoom Pape Samb ñu leen gërëm di sant ñëpp daal ñoo suma su ma limee rek damay juum mais ñoo ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp waa wàllu yaan yëpp di sant bu baax di leen gërëm yéen tam presse bi jërë ngeen jëf